sant leen gërëm leen ci seen andax ñun si rajo Rewmi FM niñ koy defee dimanche bu jot rekk ci émission gox bi tey euh, ñu am si gan di dalal ki nga xam ne nag moom moo di Boubacar Biaye nekk député ca pencum ndaw réew ma nekk itam président conseil départemental bu Sédhiou Boubacar Biaye ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. maa ngi lay fay euh, Mbemba euh, Dramé sa invitation. <laughs> di gërëm président de koo xamante ne mooy sama kilifa. Mhm. ci wàllu politique. Mhm. njiitu réew euh, di sant euh, samay collègues député mhm. mais sa directeur. mooy directeur général euh, kër gi di ko sant di ko gërëm. en tout cas entreprise bi. entreprise boo xamante lu mu employé ci doom Sénégalais Sénégal bëri loolu en tout cas. ñu ngi koy sant euh, liggéey bu baax la mm-hmm. loolu la sénégalais ku nekk ku am moyen mm-hmm. war a def pour jàppale mm-hmm. en tout cas doomu réew mi di ko gërëm di ko sant bu baax moom président Mbagnick Diop alors président Boubacar Biaye dañ koy dooree rek li nga xam ne moo jëm ci situation nationale ci jàngoro coronavirus bi alors tey naka nga gisee li nga xam ne moom moo jëm ci chiffres yi saa sune rek dafa mel ni dafay gën di yéeg lan moo ci sa jàngat bu njëkk. Euh, may ma ci wàllu chiffres yi. Mm-hmm. ma wax la man léegi euh, jàngat ma chiffre yu rusee ci wàllu Covid suñu réew. Mm-hmm. parce que ay chiffres la su fekkee ne da nga koy analyser da ngay juum ci analyse bi. Mm-hmm. tey da gis chiffres yi mu yéeg. ëllëg mu wàcc. Euh, soo defee analyse dangay ngay foog ne peut-être courbe bi mi ngi wàcc. alors réalité suñu courbe mooy courbe boo xamante ne kenn mënu ko analyser lu ñu mën a euh, seede mooy jàngaro bi doomu jàngoro bi mi ngi suñu réew mi ngi Sénégal euh, war nañ war nañ war nañ fexe pour que mu mu ñu saafara ko loolu mooy lan mooy état koo xamante ne moom la loi jox sañ-sañ mu indi santé ci ñëpp dafa war a fexe pour que Covid 19 mu jóge fi. moom kese moo mën a joxe orientation yi mu ngi koy def président de la république en tout cas depuis keroo premier cas bi feeñ suñu réew mhm. effectivement dafa jël ay dogal yu bëri bëri bëri ci wàllu santé mhm. te ministre de la santé koo xamante ne moom la ñu dénk pour mu dogal mu ngi koy def population ñu parce que ñu bëri nee mbas mi feebar euh, pour que ñu saafara ko mhm. dafa Euh, waa communauté tamit euh, dafa dañoo war a dugal seen loxo. Mm-hmm. mooy yow man mi mm-hmm. loolu ci wàllu euh, prévention. Mm-hmm. lan la bépp Sénégal war a def pour que mu bañ a cest Covid. mooy ñu jëfandikoo masque yi. jëfandikoo gel yi. alcoolisé nest pas. jëfandikoo ndox pour que nga mën set. donc loolu suñ ko respecté xëy na ñun jàppale waa santé mooy docteur yi maintenant euh, état tamit hôpital yi dafa war a góor góorlu tabax ak dooleel plateau technique yi loolu responsable effectivement mhm. seen jumtukaay mhm. donc daanaka suñu boole loolu yëpp li état war a def mhm. président de la république koo xamante moo war a jox orientation mu joxe mu joxe orientation pour que moyen mu génn ministre de la santé ministre de l' économie et finance ministre de la sécurité publique mooy ministre de l' intérieur ñoom ñëpp ñu doxal population yi accepter. loo xamante ne mooy permettre doomu jàngoro bañ laa dugg. ñu fexe ñu nekk ci yoon boobu. suñ ko suñu góorgóorlu ci ci yooyu yi ma yi ma lim noonu. xëy na yàlla mun nañu jàppale. est-ce que état bi xawul lajj itam ci côté euh, saafara coronavirus bi. bon xam nga analyse bi mun nga mun nga gis état. dafa am ay point fort yoo xamante ne def na ko mhm. mu am en même temps ay point faible loolu mun nañ ko teg parce que doomu aadama moo mel noonu parce que état mhm. ay doomu aadama ñoo ko ŋànk président de la république ministre yee euh, député yee et cetera et cetera mhm. donc dina am fu mu def ay jéego am foo xamante ne war na fa mun a euh, góorgóorlu lan la war a def effectivement lan la war a yokk fu mu def ay jéego mooy bi premier cas bi mu amoon mu jël doxal ñu tëj frontière yi. Mhm. loolu gis nañu résultat parce que ci lim euh, Covid bi journalière boobu gis nañu cas importe amul woon. Mhm. soo gisee tey ci. compte bi. Mhm. am na au moins benn cas importé. bien sûr sax fan yii moom dafay autrement bu ñu tëjoon. Mhm. Euh, apporte na tout résultat. Mhm. loolu réussite état la. deuxièmement ku feebar su ñu la yóbbee hôpital am na ay pour pourcentage yu bëri bëri ñoo xam ne dañuy moom seen bopp. loolu mooy cas de soin. guéri cas de guérison. su ñu defee comparaison cas de guéri cas ak cas non guéri cas guéri moo ëpp fuuf décès yi donc foofu. état def na ay jéego. ci wàllu plateau plus plusieurs milliards ay. presque quarante milliards et quelques soixante milliards donc euh, kenn xamul exactement chiffre juste bi ah donc am na ñoo am soixante milliards wax mhm. à peu près ay soixante deux milliards soixante-dix-sept milliards c'est ça mhm. président loolu la xayma bi loolu la jot a génne pour jënd ay matériel pour dooleel mooy plateau médical yi amoon na jamono mooy kii respirateur yi amul woon ci centre de traitement yi mais gis ngeen ay quelques semaines am na ay matériels yu bëri bari yoo xamante ne ministre de la santé mhm. jotoon na ko am mhm. xaalis boobu moo tax donc foofu moom état réussir na mhm. maintenant état fu mu foo xamante ne foofu la naroon <clears throat> euh, rectifier mooy est zone yoo xamante ne foofu foofu la kaay bëri. Mhm. est-ce que war nañu jël ay matukaay pour que seen déplacement. Mhm. ñooñu seen déplacement mu am wala insu état dafa hésité. ci situation yooyu est-ce que situation Dakar mhm. wala bañ a confiné mhm. bàyyi nit ñi ñu tukki wala ñu bañ a tukki loo ci gis yow rassemblement yi mhm. est-ce que waa église yi est-ce que waa kii euh, kii euh, par exemple jullit yi est-ce que dañuy dañoo war a continuer di julli xam nga yooyu yëpp ay rassemblement ay rassemblement yoo xamante ne ñëpp xam nañu rassemblement yooyu mooy favoriser joxante euh, doom jàngoro di dox mhm. foofu gis nañu ay station yu bëri bare bëri nguur def nañu ko mhm. tey su ma la joxee benn exemple mooy ci wàllu rassemblement soo demee ci corniche ba mhm. doo fekk benn xale di jafandikoo mooy euh, <clears throat> parcours euh, sportif bi ah. foofu policiers yi ñu ngi fay fees del ak seen camions yi ñu ne ñu ngi surveiller ñoo xamante ne mooy xale yi ñuy def sport et au même moment nit ñi yaa ngi fees del ci jumaa ji. comprendre foofu tamit distanciation lañ fay yóbbu. waaw moom parcours sportif mun nañ mun nañ. mun nañ ko régl euh, euh, réglementer. ba hmm. distanciation boobu. mu am par exemple dans un terrain de benn terrain de football boo xamante onze personnes. Hmm. mais gis nga match de football. foofu moom amul benn. distanciation euh, ay distanciation mais tere nañu booy di football. booy di daw ci parcours bi. Mhm. au même moment mais dafa am ay rencontres yoo amoon na ay rencontres politiques. Mhm. nit ñi di ko def. léegi loolu donc loolu. Mhm. ay contradiction mesure bi bu ñu ko jëlee dañu ci war a jël ba mu jeex. c'est-à-dire <clears throat> il faut toujours assumer soo rendre compte mesure bi mesure bu baax la dina tere doomu jàngoro mu circuler. jël ko parce que benn conséquence kese la mooy muy doomu jàngoro bi mu bañ a dox. Mhm. léegi donc loolu mhm. station yooyu. Mhm. dem na ba à l'heure la presque doomu jàngoro mu ngi fu ne mu ngi ci kër yi mi ngi ci néeg yi donc c'est trop tard. loolu moo la indi l'autre hésitation. mooy tabaski. ministre de la santé. proposition euh, joxe na proposition bu baax. Mhm. ñëpp xam nañu proposition bu baax la. Mhm. parce que tabaski fo fu la fekk. Mhm. mun nga koo féete euh, féete foofu. mais état. ñu ko toppuñu ko ci loolu. et pourtant ministre de la santé état la normalement moom la nit ñu war a déglu. ci wàllu feebar bi parce que mission am la. lii mooy sama orientation. lii laa bëgg au moins donc président de la république. waroon na ko jàppale ci loolu. pour que sénégalais respecté. mais xoolal après tabaski. Ah, lan mooy constat. kaa yi mu ngi gën a yokku ah. Sédhiou. Mhm. Euh, zone boo xamante daan saa mun mun dañuy def seen point journalier doo dégg ay cas foofu ay par exemple Kédougou doo fa daan dégg ay cas mais tey parce que c'est des zones c'est des zones alarmantes donc c'est ça mm-hmm. donc état mm-hmm. am na ay points mm-hmm. positifs ñu mu def mais am na aussi en même temps des point négatifs bon point négatif bi moo nekk du ñu sonal à l'heure où nous mbokk yi yéen a ngi ci euh, émission gox bi tey nag euh, ñu siy dalal ki nga xam ne nag moom moo di Boubacar Biaye nekk député nekk itam président conseil départemental bu Sédhiou 88 le 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 mun ngeen dugg itam bokk ci waxtaan bi loolu daf ñuy may transition ñu dem Sédhiou alors nemmeeku woon nañ kaa yi. amoon na fa mais mu wàññeeku tey en tant que président conseil départemental bu Sédhiou ban situation nga ñu mën a jox ci région bi. à leur la <clears throat> suñu centre technique euh, épidémiologique euh, centre de traitement épidémiologique fukk cas. Mhm. moo nekk waxtu bu may wax ak yow. Mhm. ay fukk cas euh, mhm. moo nekk ci loxo fajkat yi. effectivement bon. Euh, ci cas yu wa yu jóge Sédhiou am nañu benn décès mais Ziguinchor cas cas décès boobu. Ziguinchor la ci centre de traitement Ziguinchor la amee. Mhm. mais Sédhiou lañ koy comptabiliser Sédhiou lañ koy comptabiliser. Mhm. mais décès bi Ziguinchor la loolu mooy suñu euh, situation. Mhm. tey ci wàllu feebar bi. effectivement bon amoon nañu euh, ay cas jamono yu yàgg. coowal Mankono Ba waaye coowal Mankono Ba. mais yàlla jàppale nañu euh, ba finalement vraiment centre bi dem na ba. Euh, jël na en charge ñëpp. amul kenn koo xamante ne wàcc na liggéey euh, ba jusqu'au moment de la tabaski. Mm-hmm. benn kaam moo fa desoon koo xamante ne. Mhm. donc euh, deux ou trois jours moo ko desoon pour que ñu mhm. libéré ko. Mhm. mu ñu mu ñu dañ ko libéré quelques jours après la tabaski. donc loolu mooy presque ñun suñu situation au niveau de Sédhiou. alors tey gis nañ euh, li nga xam ne nag moom moo jëm ci cas yooyu kon naka la euh, yéen jóge jël ay matuwaay ci li nga xam ne moom moo jëm ci jàngoro bi ba ngeen mën a vaincre li ni bon. organisation lépp organisation la euh, au niveau de la région dafa am benn comité régional de lutte contre euh, la Covid-19 au niveau départemental dafa am benn organisation mooy comité département de lutte contre la Covid mm-hmm. ñaar comité yi ñooy def xayma mm-hmm. situation Covid bi ci au niveau régional mm-hmm. comme au niveau départemental maintenant ci au ci au niveau du comité. Mhm. surtout comité départemental boo xamante ne presque mooy réunir presque. Mhm. chaque chaque semaine. Mhm. dañuy évaluer risque département ci wàllu euh, euh, propagation virus bi. donc euh, évaluation dañuy jox ay propositions. mooy ñu jël mbokk moom solution yoo xamante ne. ñu jël kooku salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ah sëñ bi ñu lay ziar tur alo mbokk mi rëcc na ñu continuer donc mhm. comité comité boo xamante ne kii préfet bu département moo ko jiite. Mhm. man ci laa bokk comité boobu. donc euh, chaque réunion donc analyse dañuy jox ay proposition mooy proposition solution mhm. nan la ñu war a fexe pour que doomu jàngar wi pour mu bañ a law dans le département mhm. donc parmi les solutions euh, suñu réunion solution bu ñu gis mooy war nañ teg ay check point check point yoo xamante ne dafa war dañoo war dafa war a tëj mhm. euh, département ku dugg ñu seet est-ce que sa température Euh, normal na walla normalul <coughs> loolu mhm. solution bu baax la gis nañu euh, pandant ay semaine yu bëre bëre bëre bëre amul woon ay cas mais bii check point bi benn check point moo xaw bàyyi loxoom yolam tuuti mhm. mhm. moo indi cas manquono boobu donc autrement dit que check point ay solution yu baax la woon pour ñun ci xeex deuxièmement benn solution mooy bàyyi gendarmerie ak police di waxtaan ak population yi mhm. donc euh, seen liggéey dafa laaj ay carburant mhm. donc carburant yooyu pour permettre police ak gendarmerie di wàcc ci ci terrain ci dëkk yi ci gox goxaan pour discuter ak population yi di leen informer. Mhm. danger jàng euh, jàngoro bi waaw. Mhm. loolu permettre na soo euh, bu nekk mu am conscience que feebar bi am na. Mhm. te dafa dangereux. est-ce que tey xam nañ koo tey askanu Sédhiou que ni. oui jàngoro bi tey. loolu moo ñu jàppale bu baax a baax baax. ci mm-hmm. xeex bi soo gisee ñu am bu baax loolu la. parce que ñun euh, force de sécurité. Mm-hmm. ak force de défense même militaire yi bokk nañu ci sensibilisation. nekkuñu ay fas dóorkat. Mm-hmm. ñoo xamante dañuy ñëw. waxtaan la très bien. ak seen lif di. dóor déedéet mais bi yoon. seen stratégie c'est une stratégie diplomatique okay. la diplomatie de la santé la ñu doxal waxtaan ak population yi woon population sincèrement pour seen intérêt la ñoom effectivement loolu daf ñu permettre ñu am ay résultats yu baax maintenant gox-goxaan yi ak pers personnalité par exemple doomu si juwaay wala citoyen def seen apport ku am téeméer nga joxe. ku am cinq millions nga joxe. par exemple ñun. conseil départemental conseil départemental. pour permettre comité ñaar comité yi pour mu dox. Mhm. million la ñuy joxe pour carburant. pour ñu mën a dem di ñëw. effectivement mhm. pour carburant. ensuite ñu débloqué cinq millions jënde ay matériel mhm. matériel yooyu waa comité ñoo. def seen proposition matérielle lii ak lii ak lii la soxla ñun imposé ko bi ñu jotee seen liste matériel mhm. si la def commande PNA pharmacie nationale d' approvisionnement mhm. ñu teg ko loxo préfet koo xamante ne mooy mooy diriger commité bi mhm. effectivement après cela <clears throat> puisque population dañu dafa dafa am ay jafe-jafe pour écouler seen produit de premier ministre xam nga suñu euh, département zone agricole la donc euh, petit commerce moo fa am. Mhm. Euh, comme jàngoro bi vraiment tiitange amoon na presque euh, activité yooyu dafa nermelu woon. Mhm. ñu am benn proposition comité. Mhm. su fekkente ne moyen am na ñu appuyer population. ci wàllu lekk ci wàllu lekk. donc ci la ñu jël engagement après la rencontre. bi ma demee gisee ak samay naatango conseil yi mhm. ñëpp d'accord nañu appui boobu ñu mën ko def mhm. ci lañ jënde vingt six tonnes de riz pour jox ko askan jox ko askan yi mhm. mais ça dañ ko Euh, divisé en commune commune bu nekk mais ci comité lañ la ñu jaaralee ndimbal bi waaw comité boo xamante ne donc euh, préfet yi ak préfet ñoo organiser ñoo samp comité yi. Mhm. donc euh, ñun loolu la ñu jot mhm. loolu la ñu def. Mhm. am nañu maire yu bari def nañu la même chose. am na ay particuliers yu bëri tamit am na même ay parti politique parce que gis naa même euh, Pastef Ousmane Sonko. ñoom tamit indi nañu seen ndimbale. teg ko ci loxo seen contribution. Mm-hmm. donc teg ko ci loxo euh, préfet du département. Mm-hmm. am na ay ONG yu bëri bëri ñoo xamante ne def nañu donc daanaka presque activité yooyu. kenn desul décision yooyu. Mm-hmm. Euh, yoo xamante ne ci suñu rencontre hebdomadaire la ruusee. donc acte yooyu mu ñoo ñu permettre. ñu mën a circonscrire euh, donc euh, Covid bi suñu département. mu amoon benn baat bu xaw a ñagas bu ñu si doon déglu ci diwaanu Sédhiou Mankonomba Janamala stigmatisation bi naka ngeen def tey ba rey loolu ba mu dee kay kenn déggatu ko mbirum sekk euh, stigmatisation bi. naka ngeen def ba éradiquer loolu c'est-à-dire langage diplomatique boobu la parce que Covid. ni mu ñëwee en Afrique surtout au Sénégal ni communication meloon au niveau du ministère de la santé. ni ñu ko kiiyee par exemple comme la guerre dafa tiital ñëpp quoi. donc population seen bopp benn façon feebar la boo xamante ne c' est différent du paludisme c' est différent par exemple du tétanos différent alors que du dëgg. du feebar boo xamante ne moo gën a dangereux paludisme wala gën a dangereux tétanos wala gën a dangereux ça de diabète ainsi de ça mhm. et en toute sincérité soo defee comparaison da ngay gis ne diabète wala tension mhm. moo gën a dangereux covid feebar la boo xamante ne soo teel a dem euh, ci bërëb mais da ngay moom sa bopp donc stratégie communication boobu la ñu jël donc euh, di ko jaarale. Mhm. ci canaux ci tuyau yu normal tuyau normal da ngay identifier mooy les personnes ñoo xamante ne dañoo mën a mobiliser mbooloo. Mhm. mooy chef religieux yi. mooy président ASC yi. bajenu gox yi bajenu gox yi et cetera. Mhm. ñoom la ñu en contribution. di waxtaan ak seen naataango nee naa la même police. ñun suñu police Sédhiou du policier boo xamante ne suñu gisee kii def erreur. ñëw ju caw la. waxtaan dañuy njëkk waxtaan ak yow. Mhm. balaa c'est-à-dire euh, Cravache ba di ñëw. Mhm. et c'est ça qui a donné qui a fait en réalité. donc euh, message bi dafa jàll fa facilement qu'en réalité. Mhm. feebar la comme n'importe quel feebar comme ku am diabète ku am tension. ku am paludisme. Euh, soo feebaree dangay dem hôpital ñu seet la ñu faj la nga wër nga ñibbi dem sa kër. Mhm. loolu la donc de telle enseigne que stigmatisation bu mu commencé rek. Mhm. rapidement il fallait que ñu dag mbuum. ci ngeen dem intervenir effectivement. Mhm. donc loolu mhm. a été très facile donc euh, jarul ngeen bi. comme euh, waa Tamba lu ñu def ak le village de la tëj tout le village euh, kenn du génn kenn du institution loolu day gën a yokk stigmatisation. alors que loolu jaru mun nga am doon jàngat bi cest à feebar mun nga ko am. mais di faj sa soxla. sans que nga transmettre ko keneen. ok c' est ça. donc moo nekkoon suñu stratégie. Mhm. et c' était une stratégie gagnante. Mhm. en toute sincérité. mbokk yi yéen a ngi ci émission gox bi tey ñu si dalal ki nga xam ni moom moo di Boubacar yaay nekk président conseil départemental bu Sédhiou ci Sédhiou sax la ñuy wax lu tax Sédhiou dañ neen Sédhiou moom mënul décoller ba tey fi mu nekk rek la nekk ci wàllum développement lu tax Sédhiou tey jumtuwaay yi nga xam ne tey am na ko pour mu dem lu tax mu des lan mooy problème bi. problème mooy état moo <clears throat> investirul Sédhiou. amul benn investissement bu fa def. l' investissement développement d'un pays. Mhm. n' importe quelle région état la en premier lieu ensuite population. di jël. Ah, état bi def na say jéego de. état waa état mi ngi def jéego actuellement mais deful woon benn jéego. bi Macky Sall ñëwee au pouvoir. Mhm. ci lañu gis au moins décollage am état moo war a baliser. Mhm. c'est comme on on on aéroport su balisement amul avion du wàcc. donc suñu balisewul pour que économie dox benn économie du dox. kenn du ñëw investir parce que amuñu woon tali benn entrepreneur du jógee fale di indi xaalis foo xamante ne mënul dawal sax oto même velo sax mënu ko dawal amuñu woon tali. Hmm. amuñu woon piste amuñu woon pont. te c'est la seule région au Sénégal ñaar département donc dugalantuñu mooy département de Goudomp ak département de de de Sédhiou Goudomp mënul ñëw euh, pour ñëw faj soxla ma dans la dans sa propre capitale régionale amul c'est la seule région donc ci situation boobu département mënul décoller mënul am économie alors que mhm. paradoxe la parce que sur le plan naturel yàlla dafa tànn Sédhiou mhm. mu am toutes les ressources forêt am nañu ko ndox am nañu ko suuf bu gën a riche dans tout le Sénégal am nañu ko su fekkente ne superficie la hectare ci wàllu par exemple riziculture Sédhiou la mais su ko état aménagé wul kenn kenn du béy su état gënul ay piste gënul ay tali kenn du béy cest à kenn du def transport kenn du génne li nga mais Sédhiou yi en tout cas ñoom li ñu mën c'est-à-dire mooy euh, euh, béy ay béykat la ñu production agricole ñëpp xam nañu effectivement mhm. bu dee verger la mhm. c'est la région la plus la, la première région productrice dana carte n'est-ce pas bien bu dee ci wàllu pêche la c'est la première région productrice de crevettes donc population ñoo def loolu du état mais gis nga loolu yëpp population di def foofu lañu foofu lay mango yi du dem fenn kii foofu la institut foofu lay yàqu ñëpp gis nañu loolu mais heureusement avec Macky Sall. léegi tey am na ay jéego. loolu loolu nga bëgg a wax. heureusement parce que peut-être ni Moussa euh, xam nga euh, bu mu door a commencé liggéey. le président en tant que tel en tant que jeune ingénieur. Mhm. premier poste am mooy Sédhiou. Mhm. pour faire la prospection du pétrole. xam naa temps bu mu def Sédhiou rendre compte que sincèrement c'est du véritable calvaire parce certainement il a dû souffrir euh, à Sédhiou <laughs> loolu moo tax bi ko yàlla jàppale nekk président de la République. mu xalaat Sédhiou il faut qu'on puisse de cette région la mm-hmm. au bénéfice du pays mm-hmm. parce que Sédhiou mun na contribuer sur le PIB mm-hmm. je crois que loolu moo tax mu jël engagement d'abord sur bi mu ñëwee campagne électorale en tant que opposant donc engagement yooyu mu jël mu remettre ko en réalité mm-hmm. la parole à l'acte tey am nañu tali même yow sa sa sa dëkk mm-hmm. Marsassoum mm-hmm. amoon na jamono pour euh, diggante Sédhiou ak Marsassoum il fallait cinq de temps mais tey c'est en vingt minutes comprendre nga am ngeen garage léegi mais amoon na jamono seen maire mu mënul xalaat ne pour pour tabax seen gare routière bu bees tàkk flambant neuf. Mhm. n'est-ce pas c'est parce que loolu état bi fi nekk actuellement le président Macky moo joxe condition yooyu. Mhm. pour que ku nekk investir dak agricole domaine agricole am. Mhm. dogan boo xamante ne léegi mu ngi. employé presque ay junni xale. Mhm. di produire ay. mais des na ba tey des na ba mhm. dire commencement la. Mhm. processus la. lu des tey lu des euh, lu des moom mooy renforcer lu des tey parce que aujourd'hui région la bu ñu tànn comme pôle aquacole national. processus door na mais il faut que mu continuer pour que ça soit une réalité. de production. ndax yéen a ngi def plaidoirie bi tey yéen a ngi def. Euh, jarul plaidoirie parce que état dañ ko soumettre benn document de planification document boo xam ne daf ko adopté lors du conseil des ministres délocalisé de 2015. <laughs> donc foofu moom plaidoyer moo waratul am. à <laughs> ah, chaque chaque département ministériel. <laughs> Mhm. ñu jox la saa di la nga war a def. lu tax mu yéex kon. lu tax mu yéex. ce qui n'est pas normal lu tax mu yéex. loolu mun ma ko wax peut le président de la république moo ko war a def. Euh, ainsi de suite mais pour un état c'est-à-dire euh, responsable. warul yéex et war ñu bañ a euh, doxal loo xamante ne loolu mooy seen engagement. parce que conseil des ministres ministre ça c'est une c'est ça c'est un engagement de l'État moo ko jël effectivement donc li État jël comme engagement. vraiment ce qui est à attendre mooy mu réaliser lépp à moins que mu reprendre mu mu mu revisiter document bi mu gis dafa am loo xamante ne war nañ ko mun a joxanti mais sur le plan du document stratégique mhm. de Sédhiou dans le cas de Sédhiou amul dara loo xamante ne dafa war a dafa laaj joxante ay école lañu war a tabax pour que abri provisoire parce que c'est la première région à abri provisoire. <laughs> bëri na trop. très bien ça on n'a pas à rectifier. ay <laughs> tali la ñu war a tabax diggante Marsassoum dem Diré ji Diré ji ñëw amul dara loo xam ne dañ ko war a joxante ça c'est réalité palpable. Mhm. électricité diggante euh, Carrefour Ndiaye dem ba daa amul benn dëkk bu mag boo xamante ne da nga dafa am électricité mhm. avec une zone boo xamante ne presque plus de huit collèges un lycée poste plus de cinq postes de santé même benn kilowatt électricité amu fa donc amul dara lu ñu war a joxante foofu. Mhm. cest à jëf la sant. Mhm. côté boobu sur le plan par exemple de transport diggante Goudomp ak Sédhiou ñaar département dafa war a am pont foofu dégg nañu réponse président Macky Sall nee na parce que c'est un pont qui coûte très cher mm-hmm. étude ñu ngi ci ci wàllu étude mm-hmm. bu étudier dinañ xam est-ce que état dina engagé wala foofu moom enga euh, état pour le moment est très prudent mm-hmm. jëlul engagement mais c'est très nécessaire parce que dina tij Sénégal au niveau de la sous-région parce que Sénégal dafa war a liggéey l'enseigne que le marché de la Guinée-Bissau Sénégal war ko war na ko moom le marché de Conakry Sénégal war na moom te suñu defee pont diggante Sédhiou ak Marsassoum raccourci la boo xamante ne dina permettre Sénégal di écouler marchandise en Guinée-Bissau mu écouler marchandise en guinée sax à moindre coût parce que le, la distance va être réduite mm l'État war na ko def ci le plan agricole mais les terres le document retient que suuf war nañ aménager ay suuf donc amul dara loo xamante ne war nañ ko joxante mooy dem directement aménager c'est vrai que avec le pôle de développement le projet de pôle de développement Casamance. Mhm. secteur la boo xam ne dañ ko confier le pôle de développement Casamance mais qui peine par exemple. à décoller à à réaliser cela. Mhm. ça l'État doit faire pour que nous puissions arriver ci wàllu autosuffisance alimentaire mhm. en riz. je suis sûr et certain lu mu fay produire. Mhm. Sédhiou lu ñu war a produire ak Ziguinchor lu muy produire plus la zone du fleuve lu ñu produire le Sénégal peut être autosuffisant. Mhm. mais malheureusement. mais jumtuwaay est-ce que les terres de Sédhiou mhm. la ñu. mettre en valeur. loolu moo tax jusqu'à présent on ne peut pas avoir la possibilité. te ku ne ceeb ne mais c'est la première région productrice de riz. jamono Abdou parce que le projet rizicole avec les Chinois da nga béy ceeb noor di bay ceeb nawet. le Sénégal le, le Sédhiou à l'époque dafa autosuffisant en riz de telle enseigne que benn jeune su naree jël jabar saa de euh, néegam ceeb lay dëb pour peinture néegam loolu jamono Abdou Diouf loolu amoon na tellement que ci ci ci ci ci magasin yi. Mhm. ceeb bi kese nga gis ñun suñu kër à l'époque. Mhm. en ce moment j'étais encore enfant. Mhm. ceeb daaw géej la ñuy lekk ceeb ren kenn ko lekk. man loolu laa fekk lorsque j'étais à l'école élémentaire. ñuy bay moo bari. mais aujourd'hui mais aujourd'hui xorom bi nekkul di ko jël itam. mais xorom lekk na lépp. moi j'ai une fois je me souviens euh, bi ma nekkoon à l'école élémentaire diggante euh, Simbandi Balante Jibanar ak euh, Manékounda mhm. population ñoo jëkk seen bopp di tabax barrage pour que ndox géej gi ah bañ a yëg pour mu jël suuf cest fu ñuy béyee ceeb. loolu moi personnellement. Mhm. gas na mhm. pour contribuer à ça. ça j'étais encore très gauche. xorom bi jël na ko par rapport a ça. instant yi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu ñoom nee nañ ñu si bari mënuñu bay ndax xorom bi léegi jël na seen jël na lépp. parce que bu defee dem handicap bi voilà. raison pour laquelle j'ai dit. Mhm. ñun amuñu plaidoyer bu ñu war a def. document stratégique. très riche et consensuel adopté par le conseil des ministres délocalisé Boun Abdallah Dionne nekkoon premier ministre mhm. est un document très complet était président de la république jël engagement dañ ko xayma ay plusieurs milliards de francs CFA la ñu mhm. nañu doxal loolu rek tu verras que Sédhiou mën na contribuer la région à el seule à hauteur de cent du PIB du Sénégal. d'accord nga ñuy wax naan chaque jour ni euh, région bu Sédhiou bokk na si région yu gën a pauvre te statistiques yi sax nañ ko. waaw c'est la troisième région la plus pauvre du Sénégal loolu la statistique wane. <laughs> et malheureusement soo demee dans la région tu trouves que c'est c'est une perte pour le Sénégal parce que c'est la deuxième région je te dis boo xamante ne euh, c'est la deuxième région à forêt. Mm-hmm. Euh, du pays. Sur le plan de terre cultivable, c'est, ça peut être la deuxième région, en dehors de Ziguinchor, euh, effectivement, deuxième région. Mmh. Sur le plan, par exemple, pêche, en dehors euh, de Ziguinchor, c'est la deuxième région euh, donc, euh, du pays. Mhm. Sur le plan, mais gis nga muy pêche, mhm. muy agriculture, mhm. gouvernement, État de Sénégal. exploité wu dara à lu tax ñàkk ñàkk jumtuwaay infrastructure Sédhiou mais état moo moo moo investir à Sédhiou ñàkk jumtukaay yooyu c'est l'état qui est responsable mhm. c'est l'état nest pas état moo dem euh, région du fleuve désert sotti fa xaalis yu bëri bëri ba tey nit ñi di am ceeb ah nest pas état moo tabax autoroute mhm. tey au moins commerce bi di kii neta neta nest pas état moo dem jam ñaajo zone boo xamante ne c'est un c'est une zone argile di fa yëkkatee ay gratte-ciel mhm. donc je te dis su fekkee ne dara amul amoo aéroport mhm. amoo lii c'est-à-dire amoo production agricole du keneen c'est l'état si l'état investit mhm. pour que les jeunes aient de l'emploi dañuy am emploi kenn du dem euh, Europe wala di dee ci géej gi tout ça c'est l'état l' état a tous les moyens ñoo xamante ne population jox nañ ko. Mhm. jël na impôt. mun na am na armée c'est-à-dire pour protéger pour la sécurité am na police et cetera mhm. am na enseignant pour la formation et cetera et cetera le reste là c'est lui. Okay. maintenant pour que pour que chaque Sénégalais liggéey. moo mhm. am envie liggéey. c'est à lui de parler aux Sénégalais pour motivation. taux de chômage bi nu mu mel ci dëkk ba wàññeeku na wala yokk na. xëyu ndaw yi euh, c'est-à-dire euh, su fekkee ne da ngay wax taux chomage chômage il faut d'abord ay bërëbu liggéeykaay. est-ce que am na fa léegi amul. aujourd'hui su le plan recrutement de 2014 aujourd'hui je suis sama structure moo nekk foofu structure boo xamante ne moo gën a recruter mooy conseil départemental. dinañ ci ñëw. et du sama droit. Mhm. mais su ma recruté wul. Hmm. mais loolu benn affaire lay doon. ay jéego des na daal ci xëyub ndaw yi foofu bon euh, pour ma bañ a bañ a nekk un peu tordu. Hmm. Euh, le domaine agricole communautaire mi ngi employé. dakk dakk. Hmm. daggu CFA bi gis daggu CFA mi ngi employé mais du doom Sédhiou kese lay employé. effectivement. Sénégalais parce que le DAC Sénégal moom moom DAC. donc moomeel ñëpp la. effectivement mais du ay doom Sédhiou ñoo fa nekk d'ailleurs je crois que ay ñoo xamante ne yeneen région lañ jógee ñoo hmm. ëpp. doomu Sédhiou doomu Sédhiou effectivement. Okay. mais quand même. Hmm. mi ngi employé ay doomu Sédhiou. Hmm. quelques entreprises yoo xamante ne ci chantier yi. comme Jean Lefer bu mu ñëwoon am na ay employés yu mu jëkk mais ça c' des employés précaires. après chantier donc euh, tout le monde retourne au chômage. aujourd'hui secteur vrai pourvoyeur d' emploi mooy le secteur de Jakarta donc mooy auto emploi donc euh, il fallait que ñu jéem a prospecter secteur auto emploi mhm. balaa ñuy nekk di xaar euh, li état di war mais mhm. nous sommes quand euh, optimistes mhm. avec euh, li président Macky Sall nekk di def. Mhm. je crois que euh, en tout cas mun na may doom Sédhiou yaakaar que. incha allah dina dina dina dina dina saafara. yaay président conseil départemental bu Sédhiou ci 2014 bi élection bu mujj bi alors tey bu ñu waxoon ni bilan ci tënk ginnaaw 2014 ba tey 2020 Boubacar Biaye moom lan la réaliser tey ci ay li nga xam ni tey mun nañ ko teg. Mhm. gisal ko sunu bopp ci li nga xam ni moom moo jëm ci réalisation yooyu. Mhm. bien euh, ci wàllu réalisation ci. bon ñu ngi koy def euh, ci suñu compétence yi même parfois loo xamante ne nekkul suñu compétence. Mhm. suñu compétence par exemple dama lay jëlal exemple éducation nationale. éducation nationale euh, lycée de jiree ji mhm. ñun ñoo ko clôturé avec euh, presque environ million millions de clôture. sem bu ji amul woon électricité ñoo dugal électricité SEM de Bembe ñoo dugal électricité. en tant que président conseil départemental. oui oui oui SEM Maneba ñoo dugal électricité. SEM bu Saakaar ñoo ko clôturé ça nous a coûté dix huit millions. loolu ci wàllu lycée Ibou Diallo administration toiture bi ñoo dindi toiture bi donc euh, def toiture wu bees tàkk effectivement euh, SEM Fodé Kaba Doumbia foofu tamit. donc euh, ay toiture yoo xamante ne presque tout plus de dix salles de classe amuloon toiture ñoo def toiture c'est lycée bu Janamalari ñaar classe lañ fa tabax sem bu Janaba mhm. bloc administratif ñoo ko équipé donc totalement parce que c'était non équipé donc mun naa la limal presque ay CM lycée yu bëri bëri bari institut d'ailleurs ñu ngi programmé seen lycée Marsassoum pour mhm. ñu tabax ko incha allah mhm. su na ne Pakassène 2 mhm. sotti na bëgg nañu ko tabak flambant neuf ñu may leen mooy seen sem bu bu yàgg boobu xam ne depuis jamono Abdou Diouf am ngeen ko mais kenn tabax ko incha allah soo demee hôpital Sédhiou joxe nañ subvention liquidité duma ko wax ainsi mais soo duggee ci biir hôpital da ngay gis benn bâtiment bu rafet moo dàq ci bâtiment foofu mooy la salle d'attente boo xam ne dañ koy équiper télévision ak climat ainsi pour permettre mooy maladie ñoo xamante ne ñooy gunge maladie xam nga yenn saa ci couloir la ñuy toog di gêner même maladie ñoo xamante ne ñoo nekk ci ci ci ci ci ci néeg yi mhm. ci la ñuy salle d'attente flambant neuf pour que ku gunge sa malade. nga ñëw toog ci salle bi am sa télévision am climatiseur au même titre que tout le monde. loolu on l'a fait équipé euh, mooy euh, la mutuelle de Sédhiou ñoo ko équipé ci malaire informatique bureautique extra lépp pour permettre que suñu région mu am mën a am ay mutuel de santé dynamique loolu nous l'avons fait ainsi de suite ci wàllu microfinance benn ligne de crédit lañu lañu ber en partenariat ak waa ACEP. Mhm. pour que jigéen ñi bëgg ku ku am ambition liggéey def commerce def lépp et cetera et cetera mun nga dem ACEP dépose fa sa demande crédit ñu jox la crédit à on taux très réduit te ñun ñoo garantir tey nous voyons que mi ngi dox. bu baax a baax. te ay jigéen yu bari bari léegi soxla na suñu garantie dañoo autonome léegi. ñooy demal seen bopp. ci wàllu tailleur yi amoon na jamono pour seen matériel pour euh, seen liggéey. il faut ñu dépla déplacé wu ñëw ba Dakar. Hmm. jënd ay pilotes yi jënd ay mbuum yi et cetera ñu benn projet la yor bu cinq millions institut ñoo leen financé pour ñu am seen boutique bopp boo xamante kenn waratul jóge Sédhiou nga ne da ngay ñëw uti ay matériel Dakar on l'a fait marchand ambulant tamit ñu jox leen <laughs> par exemple une subvention de deux millions pour yokk seen activité loolu def nañ ko ci wàllu euh, euh, ci wàllu kii euh, religion soo demee église église catholique seen micro ñun la seen kii Coral. koral ñoo ko équipé ak matériel de dernière génération boo xamante ne à l'heure la au Sénégal c'est le la Coral la mieux équipée du Sénégal je dis Coral la mieux équipée du Sénégal avec du matériel yoo xamante ne ñoom sax ils ont des problèmes pour doxal matériel donc su ma la déggee def ngeen ay jéego ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci euh, conseil de euh, ci euh, région bu Sédhiou le logement du du du prêtre ñun dañoo fekk logement du prêtre amul woon karo ñoo karo lépp ci ci wàllu diine saade ci ci ci ci diine jullit tamit par exemple euh, ay juma. Mhm. soo demee montagne rouge seen juma ñoo karol lépp. dem Djibabouya seen juma ñoo karol lépp soo demee ki représenté euh, mooy euh, suñu kilifa Njaasaan mhm. këram ñoo réparé lépp. gamu yi presque chaque année une ton chaque chaque gamu boo ne dañ ko organiser à dimension gamu yoo xamante ne à dimension régionale nationale mm-hmm. non seulement subvention mais ay tonnes ceeb la ñu fay yóbbu quoi mm-hmm. Mm-hmm. comprendre nga donc mun naa la limal loolu ci wàllu environnement ci wàllu environnement képp koo xamante ne da ngay exploiter forêt bi dañu la organiser tey on est dans le projet pour samp mooy fonds de l'environnement pour que exploitant yi conseil départemental ak waa eaux et forêt ku nekk si dugal sa loxo pour aar suñu forêt loolu nu la ba ci wàllu sport ci wàllu sport mm-hmm. on a à ce que suñu équipe faño mooy ICAS mm-hmm. bañ a amati problème de déplacement ODCAV lu ñu fekk zéro subvention la fekk mais léegi ñu ngi a un million de subventions par an pour seen activité ODCAV ak ORCAV jël ñett c'est-à-dire euh, mooy basket. Mhm. tay kii euh, mooy. Euh, taekwondo taekwondo toujours. Mhm. seen kii mooy. arme arme yi mhm. ak handball ñu ñett fédération yooyu ñu téye. pour que seen. yëg. Mhm. ci kaw am na lu soxal ndaw ñi trop mhm. Sédhiou mooy stade bi nga xam ne dafa të mu pare tey lan ngay indi ci loolu stade bi chaque année ñu koy wax fu mu toll tey lan nga ñu mën a wax ci stade bi tey ci ndaw ñi. waaw stade bi dafa bokk ci feuille de route bi ma la doon wax engagement président euh, c'est-à-dire conseil des président joxe na ndigal ministre du sport. Euh, euh, mi ngi doxal malheureusement dafa am ay manquement yoo xamante ne entrepreneur moo tax liggéey bi di tardé entrepreneur la. ndaw ñi ñoom mënuñu xaar de. non c'est que entrepreneur la xamante ne amul moyen tabax jël chantier mënu continuer pour que pour pour pour, pour terminer liggéey loolu kese la maintenant président ñëw dolli. malgré ça mu mënul fexe ba entre euh, kii stade bi. pare pare. Mhm. donc problème nekkul au niveau du président la République ou au niveau du ministre du sport c'est l'entrepreneur euh, je crois que actuellement contrat bi euh, waxtaan mi ngi. dox ah, mi ngi dox pour résoudre contrat. pour mhm. denk liggéey bi. kii gagné stade régional parce que stade régional amul problème boobu. Mhm. liggéey stade régional mi ngi continuer mi ngi dox normal mhm. mi ngi dox normal effectivement parewul parce que c'est prévu pour euh, trois ou quatre ans donc euh, de construction mhm. stade municipal la ñu naroon tabax en quelques mois mhm. pour permettre xale yi mën na jafandikoo euh, pour leur activité sportive quoi donc la ñu am jafe-jafe président tey ak lim fi lim fi lim yëpp comme bilan mel na ñi kon bu bu nu dëgmalaatoon élection yi kon candidat ngay nekk tey oui c'est vrai que candidature euh, euh, sama parti moo war a décider ku war a nekk candidat. parce que c'est une organisation euh, APR ak benn Bokk Yaakaar. Mhm. moo war a décidé ne est-ce que mun naa nekk seen candidat conseil départemental bu Sédhiou wala mun ma ne kan pour le moment lañ ma sant euh, biñ ma tab pour ma nekk seen candidat mooy diriger élection en 2014 dirige naa na gagné naa ñu ñëw encore ñu tànn parmi les conseils ñoo xamante ne ñoo bokk suñu liste mhm. pour ma nekk seen candidat au niveau des élections au niveau l'élection bu war a tab le président du conseil départemental donc loolu ça a été lu tax euh, objectif lu tax ñu tànn ma loolu maa ngi koy def mooy réalisation yi te aujourd'hui jugement bu ñu war a def ci wàll euh, au niveau de benn Bokk Yaakaar à travers la ma réalisé je crois que sant yàlla amul dara loo xamante ne benn Bokk Yaakaar mun nañ ko reprocher ci wàllu résultat am au niveau du conseil département de Sédhiou. Mhm. maintenant le moment arrivera euh, su élection locale su jubee. Mhm. waa benn bokk yaakaar dinañ toog seet au niveau de Sédhiou. kan moo war a nekk seen candidat au niveau mhm. en tout cas du conseil départemental de Sédhiou de toute façon yàlla tant que mi ngi may euh, la santé de toute façon je ne pas su fekkee ne Benno Bokk Yaakaar décide na pour proposé waat ma. Mhm. encore ma nekk candidat. Mhm. mairie bi nag soxalu la mairie Sédhiou soxalu la. Ah, non non mairie Sédhiou euh, sama ambition mosul dem mairie Sédhiou. sans euh, soxla su fekkee ne waa benn bokk yaakaar dinañ ma permettre ma nekk candidat. Mhm. nañ ma euh, proposé ma continuer pour que ma continuer sama liggéey liggéey ma tàmbali au niveau du conseil départemental de Sédhiou. Mhm. effectivement. ok ñu ngi si njeextalu émission bi tey euh, monsieur le maire lan mooy kàddu bu mujj bi monsieur le président conseil départemental du Sédhiou lan mooy kàddu tey bu mujj bi ci li nga xam ni nag moom moo jëm tey ci émission gox bi tey ñu ngi woon dalal ki nga xam ne moom moo di bu bi Biaye lan mooy kàddu bu mujj bi tey. kàddu bu mujj mooy euh, sama naatango président conseil départemental comme maire yi. Mm-hmm. nañu jubal seen gestion transparent mm-hmm. impliqué population mm-hmm. loolu suñu aada ak suñu diine bëgg na ko mais loi boo xamante ne mooy code des collectivités territoriales wax na ko ku ko def tamit doo sonn doo dëgg ay critiques yoo xamante ne mhm. Mhm. man en tout cas euh, sama kaddu la boo xamante ne bëgg naa ko yëkkati mhm. jëmale ko ci suñu naataangoo deuxièmement état il faut que mu d'accord la politique de décentralisation c'est la meilleure politique pour que ñu mën a atteindre développement émergence bu ñuy wax il faut que ñu jaar ci gox goxaane ngeen mën a am loolu investissement. Mhm. la politique de territorialisation des politiques publiques. Mhm. mën na nekk une réalité. Mhm. maintenant denk leen responsabilité. tout en laissant corps de contrôle justice. de manière très xayma ku ne. cest ku ñu dénk dara mu rendre compte. su baaxee ñu félicité na su baaxul moom. sincèrement ñoo xamante ne seen responsabilité pour que ñu évaluer ñu cest à teg ku nekk ci yoon. Mhm. ñu bàyyi ñooñu def seen liggéey ba mu mat. politique soxaluñu. Mhm. mais Thierno Alassane Sall génn na livre wax ci ay le protocole de l'Élysée tudd na si ñu bari njiitu réew mi. Mhm. Alioune Sall ñu si bari yow benn Bokk Yaakaar nga nekk. tey ngay responsable itam politique loo ci mën a indi comme tontu. c'est Thierno Alassane Sall il a une bêtise c'est une bêtise. c'est une bêtise. Il y a, tu sais, euh, l'amitié, la collaboration. Il faut être capable ngay denc ay secret sama xarit ak yow su fekkee ne yow lépp loo xamante ne wax nga ma. moo hmm. koy fësal feneen. ça n'a aucun sens. nee na lii ay secret de lu mu ay gestion bu mu gis la rek ci Sénégal. li ngay waxtaan ak say xarit yi doo dem fu la ne nga teg foofu. il doit être capable. de la sobriété, n'est-ce pas mm-hmm. De l'économie, de dire n'importe où, ça, ça c'est pas bon, c'est pas digne d'un être humain. yàlla saa bëgg ko. ok kon Boubacar Biaye merci jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm. merci jërëjëf kon mbokk yi jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité ci émission gox bi.